ci suñu réew bii di Sénégal saa yu jaxasoo amee rawatina sax ci ëttu politique gi ay kilifa yu mag daal di waxtaan ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo séq jaxasoo googu ñu yëkkati ay kàddu yu rafet yoo xamante ne nii képp ku ko dégg dëgg mën a xoolaat sa taxawaay li li mel nag histoire du Sénégal ci bopp moo bindoo noonu ndaxte Sénégal la yàlla may ñu am ay kilifa yoo xamante ne nii dañ leen respecté lool bitim réew sax loolu la ñu nawee donte lu ëpp ci xët-xët yi nga xam ne mu ngi am ci réew mi booy xool mu ko ci ëttu politique gi ñenn ci ñi nga xamante ni ñoom ci ëttu politique gi ñemee loolu wax wax bu nag ci lëkkaloo ak yenn ci ay médias yoo xamante ne nii amuñ éthique amuñ déontologie dëkk ci yee fitna joxe xibaar bu dul dëgg di yàq deru ay gor tasaare ay kàcc kase lépp nag ñu teg ko ci wutug dërëm dong bokk na ci kenn koo xamante ne nii kenn dootu ko présenté te àdduna bi yëpp xam nañ ko ci ay kàcc ak tuumal gor mook journalam bii di Le Quotidien te moo di Madiambal Diagne soo ko doon présenté fii ci Sénégal dañu naan rek mooy ki nga xamante ne nii saa yu def toj moo tax genre yu mel ne moom jamono ji ñu toll nii soxlawuñ ko ci réew mi muy génn di wax ndax ñëpp xam nañ ne Sénégal ci jamono ji ñu toll nii dafa doy waar lool bari risque yo xamanteni ne ni réew mi ci la nek ndax fitna yi nga xamanteni ne di jàlloon na fi ci weer yee ñu genn ba taxna mo xam kilifa yi fi nek ba ci ay média kenn ku ci nek wara a bu baax baax yeen genre orientation ngay joxe façon bi ngay waxee baña a yee fitna ci réew mi xam dañ ne jamono ji ñu tollu ni ëttu politique gi ñu gi waajal ay élection locale législative ba ci présidentielle li tax ëttu politique bi yëngu lool élection yi bari ay enjeu ak ay risques yo xamanteni ni mu ngi ci ba taxna sax ngeen gis ci ëttu politique gi na ci opposition bi ay coalition yu bari di judd kenn ku ci nek nag bëgg a wane ci élection yi ndaxte moy nek sa premier participation en tant que nouvelle coalition ci boo xamante ni li ci des sax matatul weer ngir ñu yi ñaar jàpp ñetti coalition yu nekk ci biir opposition bi bi ak ci biir Yewwi bi ñu gis ñoo xamante ne ni état bi sonal na na ci Khalifa mi nga xamante ni histoire am kenn dootu ko nettali ndaxte ne ni bu ñu doon xool ci réew mi moo di njiitu Pastef xamante ne ni moom état bu Sénégal dafa dëkk ci di ko tooñ ku dégg ba cëg sawar lool ci li ko yàqal ak ñi initié grande coalition de l'opposition bi di yewé askan bi ñepp xam dañu de du ñu may dara waa Benno Bokk Yaakaar gi li tax bi am ci élection yi ñu jëm daf di mbir yoo képp ku ci wax bu bu grande coalition de l'opposition bi coalition d'espoir la bu mëna sax ba élection présidentielle yi ñu jëm am ñu japp né tamit wa PDS yi chance lool ci élection yi ñu jëm ndax maître Abdoulaye wad ba mu ak force am jëriñ bari grande coalition bu bees bi li di firndeel la bataille ji opposition mu ngi am ci réew mi politique gi jamono ji na lool plateau yi tàng jër mais nettu la ci réew mi ci jamono boobu dañuy soxla lool ay experts yu mën communication ak ay journalistes yoo xamante ni dañuy nekk ay analystes politique ñu joxe seen xalaat ci taxawaayu réew mi xar kanamu coalition yi jamono bu nekk ñu ciy xaar kenn ci experts yooyu ñu wax ci xalaatam ngir askan bi mën a xam exactement ban profil moo dëpp ak moom ngir mu jàppale ko ci élection yi ñu jëm ci jamono boobu la ci gis ay borom làmmiñ yu ni duñ ay journalistes seen quotidien di ci yàq lu mel ni xamee ay góoru diine bëgg yëngal réew mi te ñëpp xamee leen sos ak kàcc gu ci ma jamal jaañ ñii moom mi nga xamante ne nii boo koy présenté ci Sénégal da nga naan rek mooy waxkatu musiba bi nga xamante nii saa yu waxee dëkk bi yëngu te gis nga bu ko sénégalais yi toppoon réew mi tàkk na bu yàgg ndax saa su nekk luy xaajale diine ji ëttu politique gi ba ci suñu waaso yi lii la dëkk di def ngir rek réew mi yëngu ba Madiambal Diagne mi nga xamante ne nii jubul jubluwul gis nañ ko sax ci fan yi ju génn mu yàq lu mel ni xame waa coalition bii di Yewwi Askan ne journaliste la ak journalem bii di Le Quotidien bi di bi bàyyi fi benn bokk yaakaar nga xamante ni ñu ngi dëkk ci musiba ay toj toj ñu dëkkee ko ci assemblée nationale seen leader yi saa su nekk ñu leen digg ay sàcc ki mbuxum mu bàyyi fi loolu yépp ne grande coalition de l'opposition bii di yeewi askan bi mu ngi mel ne rek ak zawiya tijaan boo xamante ne amul autorisation ñu samp ko fële ca Tiwaawan moom ma jambal jàng di xam le ne booy xool boo xool ci grande coalition bi presque coalition boo ko xasee ba jël moo xam sa wàllu xeet sa wàllu religion ba ci sa wàllu waaso lépp dafay nekkee à côté ndaxte ñi ngay jiite ci biir parti ba wala sax ci biir coalition ba ñoom ñëpp bokkuñu gëm-gëm bokkuñu waaso te bokkuñu position looloo tax ngeen di gis ci société bi ay nit yu sañ a wax ak kilifa yàq leen lu mel ne xamee te soo leen laajee ñu ne ah li may waxal moo di homme politique bi waaye moom Madiambal Diagne sénégalais yi léegi miin ko ndax ñëpp xam dañu ne fenkat dëgg la tojkatu sonal ko lol 2017 rek mom ma jamal jang dafa bind ab article bo xamanteni ni boy xol page yi meun na téeméeri page mu dubbe ko les délires de Serigne Moustapha Sy yek lu melni xébé Serigne Moustapha Sy mi da li ni mel mom ma jamal jang xamna ne en 3 secondes njabootu mu sarti din ji mënoon nañ ko régler waye jamal jang dafa dëkk ci togn xas gor yàq deru gor wax lu dul dëgg lek riba yàq xelu Sénégal yi bëgg fi indi nak ay féwolo heureusement ba Sénégalais yi légui comprendre nañ ko mom ma jamal jang boy xol xool philosophiem depuis bañu ko xamé ba légui limu bëgg moy ëtt politique gi bu fi ben chef religieux nek lolou moom dafa yag nek nekk philosophiem commencé won na ko ca Serigne Cheikh ak yenn ci ay hommes religieux yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi a civiliser ndaxte moom dèjà kenn yaakaaru ko amul éducation xamul ni muy waxee benn genre dof la rek boo xamante ni dañ koy solal yére muy toog ci plateau yi di mbaaw mbaaw yi te ëttu politique yi nag wax dëgg yàlla anaa duñ ne ma nit ku bon dong ma war a def politique ci réew moo xamante ni ne nañu réewu diine la bëri valeur lool te valeur yooyu léegi kenn gisu gisatu ko xanaa lii muy firndeel na nag jot na nitu diine yi ak borom jikko yi dugg ci ëttu politique gi changé ko kon nag homme religieux bien sûr am na place ci ëttu ji bu fekkee ne nag pur moo leen di gêné lay di ngeen dee ndaxte parti pur ba muy juddu bëri na ci ay coalition yiy wax ak ci parti politique fii ci réew mi boobu juddoogul dégg nañ sa xaritam naafiq bu mel ne moom ki nga xamante ne nii kenn du ko dégg ci jàmm muy Maître El Hadji Diouf muy wax ne waa parti pur jamono ji mu ngi benn ab màggal Tuubaa bu tas waaw moom Maître El Hadji Diouf damay laajte rek yéen internet yi est-ce que xam ngeen parti politique am ni mu tudd moom mi woowee boppam ne mooy le député du peuple est-ce que xam ngeen parti politique am ni mu tudd mas ngeen ko dégg mu gagné ab mairie wala mas ngeen dégg numéro 2 am làmmiñam bii sawar na cee wax musiba lool ak xas gor défendre ay dossier musiba waaye nag bu fekkee ne Serigne Moustapha Sy war a dese ak parti bi du pur walay dootoo ko defati ndaxte laal nga leen ak mooy gis nga laalaakee del soit ci Madiambal Diagne mi nga xamante ne jaxase xelu askan bi ba ñu ñàkk gëm coalition bi ni mel walay boo yebu tëdd nelaw te xam ne grande coalition de l'opposition bi di yebu askan bi tuuti nga ci pour yàqu ko tuuti nga ci pour tas ko tuuti nga pour jaxase xelu sénégalais yi nag léegi ñëpp yeewu ci yow ndaxte ñëpp xam ne rii baa ngi dundee gi ci ëttu diine ji du ci kilifa aada yi amul kenn koo respecté saa yuy wax ci benn domaine rek ñëppay bëgg ut écouteur fatt seeni nopp ndax sa làmmiñ bi yi nga xamante ne nii musiba rek lay wax moo taxit réew bu réew mi yëngatoo dañ leen war a jël rek dugal leen ci kaso bi bu réew mi dalaat ñu leen di soog a génnee ndaxte ñoom li ñuy génn bëriwul waaye saa yu ju génnee tukkeel àdduna ba àdduna bi yëpp fi toll nii di waxtaanee say waxtaan alhamdulilahi rabbil alamin Sénégal nga a yàq opposition complété état ngir mën a yàq ya deru kilifa diine ce journal bi de le quotidien moy support de communication wu état bi permettre mu déstabiliser opposition bi ba ci yenn ci ay kilifa diine yo xamanteni ne nii wut ak ñom yow ya nek sen support pour ñu mën a tas politique bi tas ëttu diine ji tas ñu société bi ma jamal ñu fàttali la ne presse bi dañ la ci inviter donc waaye nek fi do doo ci kay do ci nawlé do ci référence mo taxit kuy vérifier information mo xam ci kilifa diine ci atu politique gi ba ci société bi danga laal journal yépp bam dé des sa journal bi nga xamanteni ni japp jàpp nañu ne gàcce kese moo ko tax a jóg bu yóbboo ñu gëna téyat ci genre yi di mel ma Madiambal Diagne du waxkatu dëgg xamu ko miinu ko gëmul tamit dëgg en tout cas li wér te nga ci wax ci kaw Serigne Moustapha Sy ay njabootam ñoo la raw mën naa jàngal gën naa xam jamono te gën laa crédit moo tax réew mi saa yu ñu jullee war nañ di ñaan yàlla musal ñu ci kàddu Madiambal Diagne ak kàddu Maître El Hadji Diouf mbokki seen chronique la woon ak Mame Khalifa ku leen di abonné bàyyi xel seen chaîne bii samedi bi jot di ngeen am chronique bu bees xam ana fan la produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fii ci résidence am bi nekk ci poste ci arrêt table suñu ay numéro 77

alxames gaawu dibéer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi kii di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha yi daal dina leen di sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi